asalaamaaleykum ñu ngi nuy bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni ñoo taamu rajo bi di Rewmi FM Dakar quatre vingt dix euh, point cinq di ko euh, déglu saa su ne rawatina euh, seen émission sociale toute la ville en parle samedi bu jot dix heures jàpp onze heures ngeen ci ànd ak Ndeye Comba Moreau tey ji seen émission sociale fas yéene waxtaane coowal bi nga xamante ni moo am fële ca Bambey nekk ab litige foncier ñu fas yéene waxtaane litige foncier boobu exactement naka la demee. Euh, moo waral tey ji ñu dalal ci njiitu collectif pour la protection des terres de bambay euh, di Astako euh, Diagne ñu koy nuyu di ko dalal jàmm. di la nuyu bu baax a baax Ndeye Comba Moreau di remercier ci accueil bi nga xamante ni def ngeen ñu ko fii ci Rewmi FM. Mhm. di wax ne ñëw nañ tey ci émission bi nii nga xamante ne nii fii la lépp di leeree. waxtaan ak euh, sénégalais yi par rapport ak euh, litige foncier bi nga xamante nii am na Bambey. Mhm. muy dossier boo xamante ne nii c'est brûlant. Mhm. Euh, am ñoo xamante ne nii def nañ ko ñu bëggoon nag partager ci les informations ak ñëpp ñu nga xamante ne nii ay sénégalais lan ak ñëpp ñu nga xamante ne nii dossier bi intéressé na leen. Mhm. di remercier waale waa Bambey yëpp. di leen sant bu baax a baax a baax. mais mais collectif bi lan moo tax ngeen teg ko. exactement collectif pour la protection des terres de Bambey. waaw ak yow lu tax ñu jiital la yow lañ jiital n'est-ce pas. oui ah collectif bi. Mhm. Euh, dafa nekk loo xamante ni dafa spontané. Mhm. ndax nekkul association boo xamante ni day am ay récépissé wala mu nekk association boo xamante ni day am ay euh, ay papier wala loo xamante ni c'est pour euh, l'éternité. Mhm. mais c'est un mouvement spontané. ndax li am Bambey mooy Bambey dafa nekk ville boo xamante ni dafa xat. Euh, soo xoolee commune yi ko wër yëpp te mooy chef lieu euh, du département. Mhm. commune ko wër yëpp dañoo ñëw ba sës ko. Mhm. mu am l' installation d' université donc université ku ko wax. di nga wax tamit euh, augmentation de la population naturelle. Mhm. donc étudiants yi fa ñëw. dem ba nga xamante ne ni xajatuñu ci université bi ñenn ñi ñëw di dëkk si biir dëkk bi. population bi tamit commencé màgg. njiit yi daal di ñaan ne dañoo bëgg ñu yokkal leen la commune. Mhm. pour nit ñi am fu ñu dëkk. ci lañ def euh, une demande euh, ñu appro ñu ñu ñu am approbation bi. Mhm. li ñu yokk commune bi ci deux kilomètres. bi ñu ko yokkee su deux kilomètres. Mhm. cinq cent mètres des des différents côtés. ñu ne dañuy dem vers des vers des lotissements lotissement yi pour permettre à population bi ñu mën a am des logements d'autant plus que dëkk bi xatoon na. yenn jeunes yi màgg nañu yenn cadres yi bëgg nañ am fu ñu nekk. xale yi tamit ak femmes yi nga xamante ne nii c'est des femmes yoo xamante ne nii ñii dañoo nekk dans le besoin. Mhm. ñu bëggoon fu ñu dëkk. dëgg la d'ailleurs sax soo xoolee. Mhm. jamono yooyu. mairie Bambey woowoon na leader yi nekk Bambey yépp ñu dajaloo def une une réunion bu bu mag ci euh, benn ministère bu nekk ci wetu mairie bi. ba ñu def déclaration ne Bambey dafa soxla ñu yokkaat ko. Mhm. donc loolu moo indi lotissement bi ñun nag. Euh, peut-être bu ñu duggee ci point yi dinañ expliquer nan la. Mm. mu nan la affaire bi demee litige bi waaw bi defee lotissement yi ba pare. Mm-hmm. ñu gis ne lépp li nga xamante ne nii maanaam ci ministère de l'urbanisme. Mm-hmm. ba ci décret présidentiel bi yokk e, e, extension bi lépp. nekkoon na ci yoon. Mm-hmm. ba ñu ñëw ci étape bi nga xamante mooy la distribution. ñu koy wooyee attribution. ñu war a joxe suuf si ñi nga xamante ni dañoo dëkk Bambey. bi ñu ko defee ñu ñoom ñu diviser daal di joxe un deux mille quatre cent trente deux mille trois cent quarante neuf terrain. Mhm. ñoom mhm. la dagg ci deux kilomètres yooyu noonu. Mhm. war koo delloo askanu Bambey te loi bi am lu mu ci wax loi bi ne bu fekkee dañuy def dañuy dañoo dañuy def lotissement ñi dëkk ci dëkk bi. ce sont les privilégiés. donc ñooñu waruñu leen fee bàyyi. di jël ñoo xamante ne nii non seulement dëkkuñu fa mais tamit parcelles yi sax soxlawuñu ko dañ koy jaayaat ndax parcelles yi buñ la joxee le papier dañ ciy bind parcelle à usage d'habitation. donc ñu gis ne sur les deux mille trois cent quarante neuf terrains yi nga xamante ne nii ñoom lañ déclaré. sept cent quatre vingt six rek ñoo fa am des papiers yoo xamante ne nii mën nañ ko gis dans l'état civil. par mm-hmm. exemple ils de Bambey. Mm-hmm. c' est trente trois et quelques pour cent. Mm-hmm. donc le reste ñoo ñoo nii. bon ils sont la localité wala boog ay autorités soit politique lañ. wala ay autorités administratives xam nga. Euh, laal ci justice bi laal ci administration territoriale laal laal même ci yenn corps yi nga xamante nii tey bon bëgguñu sax di ko wax à chaque fois parce que loolu nekkul suñu wareef mais comme dafa egsi foo xamante ne nii tey affaire bi grave na. Mhm. nañu nañu dem wax les chiffres en tant que mhm. ñu afficher liste yi. biñ ko affiché ne li ñii lañ tànn. Mhm. ndax lotissement daa nu mu war a demee. da ngay def une demande. en tant que yow ku dëkk ci dëkk bi. ku dëkk ci dëkk bi dem ut certificat de résidence. Mhm. buy wane ne yow ci dëkk bi nga juddoo fi nga yaroo fi nga yeewoo. Mhm. Euh, ut def tamit sa photocopie carte carte d'identité nga adressé ko au maire. maintenant bi ñu dajalee demande yi ba pare huit mille sept cent ont déposé. ñoo déposé ñoo déposé pour am ci pour am ci parcelles yi. Mhm. huit mille sept cent yi déposé yëpp ñoom dañoo war a teg un des critères d'attribution parce que euh, procédure bi loi bi wax mooy bu ñuy séddalee suuf. dañuy def da ngay da ngay photocopier sa carte d'identité mhm. de ut certificat de résidence bind demande mhm. d'ailleurs même loi bi dafay spécifier ne kenn mënta déposer kenn nit ki yaay dem déposer sa bopp mhm. waaye au-delà de ça maire bi ak pouvoir bu mu mën a am amul droit mënul sax jël benn nit dugal ko ci liste yi ndax commission moo koy def commission boobu nag maire si représenté waa mairie urbanisme chef urbanisme day ñëw euh, impôt et dañuy ñëw cadastre dañuy ñëw le préfet day ñëw les chefs de quartier yi nga xamante ni ñoo dëkk ci quartier yi nga xam ne moom la ñu war a lotissé mhm. dañuy toog mhm. ñu daal di mhm. donc ci loolu dañuy définir ay critères daal di ne par exemple si si huit cent yi déposé critères yi ak critères yi la ñuy teg pour tànn ci les deux mille trois cent parce que bac sax noonu lay noonu lay demee dama koy wax à chaque fois. dañu naan cent cinquante mille candidats ñoo am waaye ku ci am moyenne dix am nga d'office. Mm. ku ci am douze am nga am nga assez bien. ku ci mm. am quatorze c'est les mais lan moo nekkoon critère de sélection bi il mooy. Mm, bi ñu defee ba ñoom dañoo def seen ci dugal ci seen ay nit da gis par exemple le secrétaire municipal Racine Ba am na benn tableau boo xamante ni d'ailleurs c'est la troisième vague des preuves bu ñu génne ñii dañoo bokk moom papa. ñii bokk moom ndey ak baay. Mhm. ñii c'est ses cousins. Mhm. muy une de personnes yoo xamante ni seen waa kër ak mbokkam yépp la ci dugal. Mhm. donc comme si moom moom moom mbir mi parce que liggéeyu commission commission la mais mënoo jël yow tànn seen waa kër tànn ñi ànd ak yow politique dugal leen ba pare di ci wax ay quotas. suñu waxee nga ne non Sénégal la ñu nekk Sénégal. y a des choses yoo xamante ni mënuñ fii lañ ko fekk mënuñu koo génne. Mm. mais ñun dañuy wax ci li nga xamante ni loolu la yoon wax ci nag naka la ñuy séddale. mais affaire yi nan la waroon demee. exactement waaw kay mooy ni may expliquer nii. voilà dañuy nit ñi dañuy ñu dëkk ci dëkk bi. parce que mm. loi bi dafa ne. Mm. terre domaine national. Mm-hmm. boo koy lotissé di ko joxe. waa dëkk ba nga koy jox. Mm-hmm. xam nga maanaam jot a dëkk ña fa jot a dëkk. da leen di jox ba pare da nga leen di a jaay mais daal wax li nekk. lu bi ñu affiché liste yi. Mhm. ñun ñu daan ne ah lii doy na waar parce que liste yi ñoom defuñu ci ay cachet defuñu ci signature dañoo affiché ay liste nii rek d'ailleurs boo demee benn. kii local bu nekk foofu noonu ñu Bambey TV ñoom ñoo njëkk a photo affaire bi def ko sur le site ba tey boo demee le 2 dugg sur le site di nga ko gis bi ñu demee bi ñu ñëwee ñu gis affaire yi ñu ne ah lii doy na waar parce que lan moo tax ñoom ñu tëb a tëb affiché mhm. joxe affiché parce que bu fekkee commission moo liggéey préfet war Euh, urbanisme signé kase parce que liggéey bi jeexee mhm. ñoom ñëpp dañuy am ce qu'on appelle des PV de délibération mhm. PV yooyu nag dañuy may population bi képp ku dëkk Bambey wala ku fay fay impôt muy contribuable mën ngaa dem mairie bi laaj leen les les PV ñu jox la ko. Mhm. parce que loolu la loolu la loolu la loi bi wax rek. dans la décentralisation. dans la participation citoyenne euh, ak ak acte six dafa ne képp ku dëkk ci dëkk wala nga fay fay impo bu ñu defee délibération. wala acte boo xamante ni dafa génn ci le le soit le conseil départemental ou la commune am nga droit dem. Mm-hmm. à frais. Mm-hmm. demander à ce ñu jox la ko bi ñu affiché ñu dem directement laaj leen les PV. Mm-hmm. Euh, secrétaire municipal daal ne leen koo jox parce que ñun dañ ciy gis ay ay yoo xamante ni doy waar. ay mineurs. ay mineurs yoo xam jox nañ leen ci. parcelles yi ci yoo xamante nii sax. soo xoolee. mais ci dëkk ba lañ dëkk. waaw mineur. mais mineur yooyu waxuma ne mineur du am carte d'identité mais mineur yooyu. Mm. ñu ñu ci gis kenn ki euh, benn mineur papaam. Mm. magu papaam membre d'office la ci commission boobu di attribuer terrain 17 ans la am. Mm. Euh, beneen mineur bi papaam c'est le petit frère d'une politicienne boo xam ne ñëpp xam nañ ko Bambey. Mm-hmm. ku siiw Sénégal. beneen bi ñoom ñun xamuñu la personne mais on connaît le nom les les numéros de terrain atribuer bi ñu bi gisee loolu ñu gisaat tamit ne sur les yi ñu déclaré. Mhm. sauté nañ de presque numéro mhm. par exemple booy def deux tëb trois dem quatre. Mhm. donc ils ont sauté presque deux à dessein ils l'ont fait à dessein ñun ñu jàngat ci ne. numéro yooyu ñu ñu sauté. soit dañ cee def turu kilifa. yoo xamante bëgguñu ko afficher nit ñi gis ko. wala boog ñoom dañ koo téye rocc ko ci. liste mais numéro yooyu naal feeñu ci liste bi ñu affiché bi yi ñu affiché deux euh, mm-hmm. waaw mu am ay mu mm-hmm. ñoo xamante ni jox nañ leen deux ba trois terrains. trois parcelles. trois parcelles am na ñoo xam ne jox nañ ñu si mm-hmm. gën a tuuti la am nañ deux ñii trois lañ am ñii plus. quarante deux personnes ñu gisaat ne ñoom pour. ga pour garantir seen yëf yi. Mhm. dañoo xool ñi nga xamante ni ay autorité lañ biir Bambey muy les quotas politiques. Mhm. ñëpp ou la plupart parce que bëgguma tooñ. Mhm. jox nañ leen ci. ñi ñi xam nañ leen baax parce que seen tur a ngi ci liste yi. xam nga ñii ay responsable lan am na si koo xam ne sa directeur national la. ñii dañuy politique les jeunes politiciens ak ñëpp ñi nga xam ne yaakaar nañ ne bu affaire bi génnee rek. mën nañoo wax bi ñu demee ñun ñun. ñu laaj maanaam ñëpp ñi nga xamante waroon yëngal. très bien jox nañ leen jox nañ leen jox nañ kenn waxut ñëw benn leader politique waxul Bambey parce que ñoom ñëpp jox nañ leen ci parcelle jox nañ leen ci parcelle la plupart jox nañ leen ci parcelle yi beneen affaire bi mooy mm-hmm. ñu ci ay ñu gis ci juge d'instruction bu nekk euh, à Diourbel mm-hmm. gis ci ay responsable yoo xam ne ci administration bi la ne ay ay benn ancien commissaire de police mm-hmm. boo xamante ne récemment lañ ko affecté Bambey gis ci ay éléments police gis ci euh, administration gis ci ay gouverneur gouverneur gis ci ñoo xamante ne nii maanaam bi bi ñu commencé wax sax tous les chefs de service nag yi nekk mm-hmm. Bambey. Mm-hmm. tous les chefs de service département du départementaux de Bambey tous les chefs de service jox nañ leen. service action sociale comme développement comme ñëpp dagg nañ leen jox nañ leen am na si sax koo xamante am na ñaari terrain am na ci koo xamante action sociale la nekkoon daaw la dem retraite soo xoolee euh, ci liste bi jox moom tamit turam a ngi ci. donc ñun bi ñu loolu ñu bind préfet daan ne ko dañ ñëw dañoo demander PV bi waa mairie ñu koo jox dañoo bëgg. yow en tant que préfet nga xam ne yaa fi représenté président de la république nga wax ak le mu hmm. jox ñu mu mu faire appliquer la loi. léegi ñan ñoo taxaw wax loolu. ñun ñoo demoon ñun. yéen ñan ñan ban collectif bi ñan ñoo ci nekk exactement. collectif bi c'est la population de Bambey. donc la plus la plupart ñi fi ñi si nekk. majeure partie c'est les jeunes la c'est les c'est la population de boo xoolee les manifestations yi ñu def. Hmm. def nañ une grand sitting devant la mairie. Hmm. boo xamante ne nii soo xoolee suñu page Facebook di nga ko gis. Hmm, def nañ une grande marche boo xamante nii c'était euh, couvert même par la police ñu dem ba ci préfecture jox ko suñu mémorandum mais li ñu seetlu mooy jour bi ñu demee. foofu préfet foofu moo nangu woon marche bi mais bi ñu demee dafa bàyyi benn ASP ASP moo jël suñu mémorandum. boobu ba tey nag ñoo ngi wax parce que ñun li ñu sentir mooy. Mm. c'est comme s'il y a quelque chose quelqu'un quelque chose qui qui mm-hmm. de protéger ces gens là. mais yéen lan ngeen bëgg exactement yow am nga ci terrain yow Astaco man déposé ma ci terrain yi déposé ma ci terrain amuma ci. lu tax déposé woo bëgguma ci lu tax déposé woo dama gis population Bambey. waaw mu nekk population boo xamante ni elle est par la pauvreté. 48 virgule 9 pour cent. tey jii boo duggoon biir Bambey nga gis nit ñi ni ñu dëkkee nga gis pauvreté bi ni mu fa tollee mhm. am na ñoo xamante ni ñoom gën a soxla mhm. parce que peut-être am man mën naa am possibilité jëndal sama bopp terrain wala mën naa am sama possibilité utal sama bopp foo xamante ni peut-être dina dinaa am parce que peut-être yàlla seetaanu ma mhm. mais boo demee biir Bambey nga xool marché bi ñu defoon nga gis nit ñooñu nga xam ne dañoo dëkk bay dëkk muy à muy à euh, euh, de de la ville ñooñu bañ fay dëkk kenn bu kenn bëgg fa woon dëkk ay jaar ñoo fa nekkoon ay jiit ah ñoom ñu dem hmm. dëkk fa parce que amuñu woon possibilité fayal seen bopp location dëkk fa ñii dëkk nañ fa vingt ans ñii dëkk nañ fa ay quinze ans hmm. amuñu lenn ñenn ñi dañuy xëy sachet ndox li ñuy jël taxaw ci tali bi di ko jaay ba ngoon ci dàkk benn sept cent wala benn cinq cent hmm. parfois lu ñu lekk sax duñ ko duñ ko am dëkk foofu noonu pendant ay quinze vingt ba dix sept ans ñu ñëw dëkk bi di màgg ba fekk si leen foofu ñu war koo lotissé loi daal di ne. ñu am ne. Mm, mm, mm. képp ku dëkk foo xamante ne nii dañ koy dañ koo lotissé nga yàgg fa. quatre bornes yi wër la da ngay toog. ñi nga xamante ne dañoo dëkk foo xamante ne nii bi defee plan yi ba pare. dafa nekk yoon ndox. mu nekk dispensaire wala mu nekk hôpital wala mu nekk cimetière da ngay jug ñu réaligné la. ñu wutal la li mooy. dañuy gis ñoo xamante ne dañoo dëkk quatre bornes yi. loolu beneen kaala mooy ñi dëkk ci bay dëkk yi. ñu yëkkati leen yóbbu leen ay 500 mètres fi ñu leen yóbbu sax place ndox la. Mm. ba pare yóbbu feneen daal jël fi ñu dëkk di ko jaay. Mm. tey boo demee Bambey place maanaam jaayam suuf mi c'est parce que université Bambey moo revaloriser les terres de mm. bu njëkk ba boo amee ay 700000 500000 da ngay am terrain. mais maintenant terrain yi ay 3 millions 500 4 que ñoo lotissement boobu euh, est-ce que ñoom dañoo lotissé may ñooñu entre guillemets. wala dañu jaay terrain yi. am na yoo xamante ne nii dañ koo jaay. am yoo am na yoo xamante ni dañ koo jaay parce que boo xoolee place publique yi muy les réserves. Mhm. yi nga xamante ni parce que réserve place publique kenn waru koo jaay. Mhm. boo xoolee booy dugg Bambey. Eh, ISFAR mooy eh, école nationale des cadres ruraux. Mhm. en face am na benn loo 48 terrain. yoo xamante ni xamuñu fan lañ ko jaarale ci le conseil municipal. soo xoolee ña am ñu bëri soo soo leen laajee dañoo jënd. nga dem si réserve jàmm gën moo nekk ginnaaw université foofu 47 sax lu am bi ñu daggee foofu jox nañ ci waa cadastre quinze terrain mhm. waa cadastre di ko jaay am na ci terrain yoo xamante ni foofu cadastre ñoo ko jaay waa cadastre bu jubel mhm. donc ne bu ne ñu ko jaayee 3 millions 500 li ñu fa am ñëpp soo xoolee ñenn ñi ay kilifa lañ ñenn ñi am nañ baat ci li ñenn ñi jege nañ leen foofu ñoo xamante ni amul kenn ku dëkk Bambey ku ñu ko attribué la parce que terrain bu ñu ko daggee di ko joxe dans le national mhm. mairie amul droit jaay terrain naan dagg nañ fii ku soxla ñu déposé déposé daal di tànn ñu ko war a jox ñu jox leen. tey jii yéen yéen lan ngeen bëgg. yow sax jaaxal na ma lu tax defoo demande pour am si terrain di nga dëkk Bambey liñ bëgg. waaw liñ bëgg mooy. waaw lépp loo xamante ni dañ ko war a defati Bambey. Mhm. ñu jaarale ko ci yoon. parce que dañoo gis ñoo ñu ko def lotissé nañ même pas un mois après ñu jënd seen ay 4x4 à 10 millions 9 millions 500. ñoo xamante ni ñoo jënd ay 4x4 les les les responsables. yi nga joxe terrain yi. comprendre mhm. euh, jënd seen ay maanaam da bi ñu yor effectivement mhm. loolu loolu nekkul sax loo xamante ne mais est-ce que am ah, man li may wax li may wax booba tey dafa mhm. nekk loo xamante dama naan à chaque fois bu fekkee li ñuy wax ñoom dañoo ne peut-être c'est des diffamations wala dara parce que laay waxee ñëpp ñu ngi may tey si page Bambey yëpp ñu ngi suivre l'émission donc xam nañ li may wax ñoo xamante xam nañ leen bu baax c'est des enseignants c'est des trucs xam nga ñoo xamante ni dans les un passé très récent mhm. euh, par exemple le secrétaire municipal mhm. gis nañ benn vidéo boo xamante yekk na yekkoon na maire lu ne di ko wax mhm. ay détournement yoo xamante def na ko ci euh, le budget de Bambey ba ci ay affaires yu grave yoo xam ne enregistrement yi kii ni euh, émission bi dugal nañ ko suñu page Facebook ñëpp dégg ko sept mois après ou quelques mois après maire nommé ko secrétaire soo xoolee problème yi am Bamba yëpp ci lotissement bi ci loxoom la jaar bu ñu waxee dafa génn carrément dafa génn carrément mm. lu ci baax man la lu ci bon man la ci benn rajo bu nekk euh, communautaire bu nekk foofu gox bi ah, wax carrément ne euh, d'ailleurs même université recteur université fi léegi ànd nag ban xawma addunaam bi ñu ñëwee fii nii wan ma ay doublon yu amoon ci quota parce bul fàtte ne ñoom tamit dañoo jox waa université Bambey quota deux mille quatre deux cent quarante neuf terrain mm-hmm. université bu Bambey. pour ñi nga xamante ni dañ fay dañ fay jàngale wala dañ fay liggéeyee affaire mm-hmm. alors que boo xoolee sax dans l'université euh, le ministre avait avait demandé à ce qu'on construise des logements mais ponctuels pour professeurs yi nga xam dañuy ñëw. def ko demaat bu ñëwee mën a fanaan mm-hmm. demaat ñoom mm-hmm. nag. dem nañ ba waxante ak kii parce que université bi dañoo am une coopérative d'habitat jox leen ci loo ci mhm. Mhm. que ne coopérative bi am na lu mu joxe nga cent mille wala cinquante mille donc ñu ne leen convention yi leen may ko soxla ko ñu ngi convention bi génne leen ko boobu ba nangu ñoo génneel convention yi convention bi leen may ñu jël quinze terrain boo xamante ne ni valeur yi c'est presque cinquante millions fay ne dañ koo fay waa cadastre ñu leen génne leen convention wan ñu ñu xam lan moo ci nekk nanguwuñ koo génne PV yi nga xamante ne nii moom lañ def pour les lotissements là mhm. ñu leen PV yi génne leen ko ñu xool nanguwuñ koo jox d'ailleurs am na sax benn espace boo xamante nii euh, Bilal Oil mhm. lañ ko signé loon mhm. bi ñu ko signé ak foofu kooku daan ne leen defal foofu benn bilaal ne dinaa leen fa defal benn quatre engar yoo xamante ne ni xale jigéen sax wala jigéen ñi bu ñu bëggee mën nañ fay dem di jaay jën daal dina waat espace bi des naa fa def benn parking boo xamante ni groupe porteur yi fanaan Bambey mm. mën nañ di fa gaare di leen fay di leen fay yéen euh, ay taxe meeri Bambey wala oto yi nga xamante ni dañuy ñëw di fanaan Bambey di fanaan di di gaare foofu di leen fay mm. mais gis na ne boobu ba tey amul dara lu def ci espace boobu noonu mm. tey jii ñoo leen laaj ñu publier convention boobu maanaam convention boobu bi ñu signé woon ak Bilal Oil ci espace bi bi nekk station bi nekk Bambey Shell booy génn mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. nanguwuñoo joxe loolu ba tey d'ailleurs jot nañ information que ne espace bi desoon sax am na ko tudd un certain Sangone Diop jox nañ ko foofu noonu ba am na si ñoo xam ne moo commencé di ci waxaale ak ñoom bëgg leen koo jaay à vingt cinq millions donc c'est un boo xam ne dafa dépassé carrément scandale yi ñuy dégg fii nii ci affaire yi dengaleer rek da koo da koo raw parce que ñi ci takk dañoo bari mais yéen da ngeen accuser le le le maire wala. effectivement le maire. lan ngeen koy accuser exactement euh, abus de pouvoir. Mhm. abus de pouvoir euh, attribution illégale ak vente des parcelles à Bambey. loolu lañ koy topp d'ailleurs déposé nañ plainte d'ailleurs bëgguma sa dugg ci côté judiciaire parce que déposé nañ plainte ci ah, procureur mais foog judiciaire bi fan ngeen ci toll parce que comme que yéen def ngeen li ngeen war a def interpellé ngeen leen plusieurs fois ñoom nanguwuñ leeral benn yoon euh, ci ni ñu defee lotissement bi ak attribution parcelle avec des preuves waaw léegi euh, yéen euh, ngeen dem ci yoon pour bañ laa dagg sax ñoom loti lotissé woon nañ ba lotissé ay armeer ah bon waaw lotissé woon nañ ba lotissé ay armères ñun ñu ànd ak suñu ak ay ak ay ak la presse dem ci armères yi am na armère yoo xam ne ñu ngi ay nit ñoo fa tëdd ay nit ñoo fa tëdd six bornes mu ngi fa woon mhm. bi ñu demee d'ailleurs bi ñu fay dem dañoo jël précaution woo suñu avocat maître Khoureychi Ba. Mm-hmm. ñu koy remercier bu baax parce gis nañ ni mu taxawee ci. le dossier boobu ba mm. mu ñëw Bambey ñu ànd ak moom ak tout la presse ak la population. dem ba foofu noonu caméra euh, les les tombes yi nga mm-hmm. xamante ni dañ fa dañ faa teg ay borm maanaam ñu ñëw ba luuti seet. Ah, ay armère waaw mais kon nan lañ. bu ñu ah, waxee dañoo waroon naroon toxal armère yi. bu ñu waxee. waaw ñun dañoo wàcc affaire bi tout la population affaire bi da leen ñu def mu def benn tollé ba au niveau national tout le monde en a parlé. Mhm. Euh, d' euh, am na benn télé de la place boo xamante ni defoon naa fa defoon naa fa émission ñoom sax génne nañ. exactement génne nañ image yi. j'ai vu l'info voilà yaa ngi mhm. Mhm. bi ñu defee loolu. population bi génn ça a créé l' à Bambey. automatiquement préfet daal woo le responsable euh, de l'urbanisme bu Diourbel ak bu Bambey woo responsable domanial bu mairie ñoom ñoo fa ànd daal di génnaat borne yi. yi ñu defoon yi ñu defoon te pourtant ñun bi ñu waxee bi ñu waxee mhm. maire dafa génne non benn borne la benn borne la woon kay te dañ faa juum mhm. mais bi ñu demee gis nañ ne y avait six bornes te ñun dañ faa àndoon ak suñu avocat heureusement que on a les images les vidéos ak les mhm. photos yëpp avec nous donc bi ngeen yëngalee si lañ si lañ retiré si lañ ñëw daal di mais préfet ànd ñoom ñu génnee les bornes six bornes la ñu génne borne yi ñu def ci biir armères yi moom borne ba borne ay armères daal di excusé wu ne dañoo juumoon parce que y' a eu une pression. kon euh, eh, bu noppi woon c' est ça éliminer armée bu noppi woon c' est ça qu'elle fait et y' a yu nekk foofu am na ñoo xamante ni dañuy toog ne man sama maam wala sama yaay fii lañ ko denc. dañuy jaar sama bakkan. Mm. am na ci koo xam ne sama ñaar rakk fii lañ leen suuf ci suuf garab gii. Mm. donc du nangu benn yoon ñu koy lotissé. Mm. biñ gisee affaire bi def na benn tollé tout le monde en a am na mouvement yu bëri yu ñëw Bambey Guy Marius Sagna d'ailleurs mm. def nañu moom benn euh, conférence de presse si siège si siège doy na mm-hmm. ba du joxe toutes les informations par rapport ak li am Bambey parce que scandale mënta weesu lii nii mm-hmm. bi ñu waxee loolu ñu daal di bindaat comme bindoon mm. nañ préfet préfet waxul répondre ñu mm-hmm. ñu dem fa ñetti yoon ñu ne ñu non dafa jàpp dafa lii ak problème bi ni mu toll biir Bambey muy continuer di nier ba tey ne non y a pas de litige bon on ne sait pas parce que kenn ku nekk am nga aussi ñu bindaat ko moom amplier ko def gouverneur. Mm. parce que notes yi déjà mu ngi fii sama si enveloppe bi. Mm. ñu bindaat préfet expliquer ko point yi ñu wax nii. Mm. avec des preuves des documents yi nga xamante ne mu ngi fii à notre disposition daal di koy amplier. Mm-hmm. def ampliation bu gouverneur. tey jii le gouverneur est informé. Mm -hmm. les renseignements généraux à Bambey sont informés. sont informés. le le le préfet. Mm. madame le préfet de Bambey. Mhm. est informé parce que am nañu moom rencontre. bind mhm. nañ ko trois fois def nañ marche def nañ sitting te bu ci nekk yëkkati leen un mémorandum jox ko jox ko ko. donc maanaam yéen li ngeen war a def yëpp def ngeen lépp def nañ ko pour dénoncer ce litige foncier comme ñun dañoo jàpp kilifa yi ci takk moo tax mhm. peut-être ñoom ñi xaw a hésité un peu affaire yooyu noonu ñu ñu comme gis nañ ne booba tey ñoo ngi daw wala ñoo ngi jéem a protéger di jéem a noo xamante ni c'est pour lii ñu ne nañ nañ nañ jël avocat mhm. si la jëlee maître Khoureychi Ba mhm. bi ñëwee moom bi ñu ànd moom ba ci armée keroog daanaka jooy sax def na ko mhm. il a fait déclaration là-bas ne lii est ñu dëkk Bambey ñoo def lii bi dafa tiim Bambey ñoo def lii parce que ku dëkk ci dëkk je pense am na loo xamante war nga koo mën a rus mhm. mais après génne nañ borne yi ne fi bokkatul ci lotissement yi mhm. excusez wu ci population parce que y eu une pression populaire bu leen bàyyi woon il allait faire plus parce que c'est des gens yoo xamante man man dama naan excusons le sentimentalisme par mhm. rapport ak ñi nga xamante tëdd nañ foofu noonu di prier à ce que leur âme repose en bi ñu demee bi ñu demee loolu avec le responsable de la communication mmh. et mhm. le collectif mhm. plainte leen au niveau de du procureur de de Diourbel procureur de la République mhm. d'ailleurs même euh, envoyé na plainte bi au niveau de de Bambey commissariat mbay commencé nañ audition yi man entendre nañ ma d'ailleurs lii ma wax nii yu ci bari def nañ ko ci ba demander à ce que les enquêtes soient faites d'une manière très rapide et que les responsabilités soient situées parce que la population de Bambey la diaspora bambayoise. Mm. la population sénégalaise a hâte de découvrir la vérité. par rapport est-ce am nga yaakaar ni voilà di ngeen ci am dëgg. surtout côté côté justice. waaw comme dafa nekk mm. ci justice moo tax bëgguñu dugg ci tudd nga ne euh, maanaam ñëpp ñi nga xamante ni ñoo waroon xeex bi mbir mi mm. euh, foofu la à Bambey ñoom euh, bi ñu lotissé jox nañ leen parcelle. pour jënd leen ñun sax booba tey. deux vagues sa tudd nga preuves. waaw. lañ génneegul. Mhm. trois vagues bii génn nii d'ailleurs boobu incha allah dinañ ko mettre à la disposition des bamba yoo xam naa euh, buñ ci paree dañoo génne ñoom kenn ku ci nekk. Mhm. muy maire muy secrétaire municipal Racine Ba. muy euh, Ndiaye hectare. comme mhm. ni ñu koy tooñee. ak responsable yi nga xam ne dañoo nekk ci mairie bi kenn ku ci ne say membre famille yi nga dugal bi. dañoo def benn liste boo xamante ni dañoo génne ñoom kenn ku ci ne. su su su maanaam peut-être dafa pareegul moo tax bëgguma ci sax waxagul mhm. mais su document boobu génnee da ngay da nga da gis ñoo xamante ñoo xamante par exemple euh, le le le secrétaire municipal mhm. ñi bokkal ndey ak baay yow asta ko noo def ba xab loolu comme dañoo officiel liste bi ñun ñëpp Bambey lañu dëkk deux mille et quelques si lañ jël daal di koy maanaam ci suñ suñ affiché am ay date naissance fictive mhm. gis nañ ci ay vingt quatre vingt sept alors que vingt quatre vingt sept vingt amutoon vingt huit février mhm. gis nañ ci ay trente et un mhm. nekk ay date de naissance fictive avril 30 jours la. Mm. gis nañ ci ay ay date ay date de naissance ay non yoo xamante ne amul. Mm. yooyu yëpp dañ ko def ci document bii nii. Mm. boole ko ci di dem. mais lu tax nga sonn ci xeex bi yow. Astako parce que man dama nekk Bambey. te par exemple nit ñi dañu naan Astako Astako rek mais y' a y' des personnes qui sont avec nous. Mm-hmm. ñun dañoo nekk un collectif boo xamante ñi si bokk ñu bëri c' est des grands intellectuels am na ay responsables. Euh, yu si nekk. Mm-hmm. ñii c' am na sax inspecteurs yu ci bokk am na si ñoo xamante ni ils sont la banque mondiale donc c' est des de l' am na si ñoo xamante ni ils sont dans des ministères et de Bambey qui se sont levés pour dire que il faut que ça cesse parce que ça a toujours été comme ça. Mhm. à chaque fois dañuy gis Bambey. Mhm. à chaque fois bu ñu amee benn affaire boo xamante ni askan ñoo ko war a bokk. Mhm. ña fa nekk ñoo koy jël séddoo ko seen biir séddoo ko seen sphère boo jël. Mhm. ci administration sénégalaise fekk nga ci les les les bambouillards ci trésor ci impôt et domaine poste yi ci gën a stratégique ñoo fa nekk. mais ñu si baree bari bëgguñu soo teg bàyyi parce que comportement yu mel nii moo tax dañoo dem ba dañoo doyal ci dëkk bi ndax mhm. ñu gis li ñu gis nit ñi ko defee te population Bambey sociologiquement c'est une population qui est passive mhm. c'est-à-dire nekkuñu ñoo xamante ni comme yeneen dëkk dañuy ay xeexkat ay nit mm-hmm. mm-hmm. ñoom loolu lañ comprendre mm-hmm. moo tax à chaque fois dañuy euh, exploiter la population dañuy dañuy basé wu ci le fait la population la majeure partie jànguñu donc lu leen neex la ñuy def alors dëkk bi dafa am yoon nous nous avons fois à notre justice mhm. ñun dañoo gëm ne Sénégal c'est un pays démocratique dañoo gëm ne Sénégal c'est un pays de justice te gëm nañ ne ba tey jii nii dans la justice sénégalaise y a des hommes de valeur y a des procureurs de valeur y a des de valeur y a des yoo xamante ne ni ñoo ngi fi te gis nañ ne sincèrement bis bu ñu continuer dossier bi nii dinañ ci am ndam parce que lépp lu ci nekk. Mhm. loo xamante ni lu ñu war a wax la. muy ay preuve écrite muy ay preuve écrite muy ay ay mhm. émission yoo xam ne ñoom def nañ ko d'ailleurs bi ñu waxee ñaata terrain ngeen jox université Bambey mhm. euh, responsable euh, kii nii secrétaire municipal dane deux cent ko wax ci gox bi gox bi FM ñu dem Mansour Ndiaye ñu koy woowee Ndiaye hectare moom dafa dem DTV daan ne deux cent vingt terrain la vidéo yi mu ngi ak ñun yëpp def mm-hmm. nañ ko ci clé mm-hmm. maire génn Dakar TV international keroog mm-hmm. daal ne deux cent quarante neuf terrain la ñoom ñett ñëpp bu fekkee bu fekkee ne ñoom ñoo travaillé ndoo ci même dossier dina ma jaaxal donc dañoo jàpp ne ñoom ñoo toog tànnal seen bopp ay nit dugal leen ci liste bi violer carrément la procédure violer les critères d'attribution sedd ñu leen am na si sax ñoo xamante ay kilifa lañ ñoo xamante bëgguñu leen sax tudd ndax ay sëriñ lañ ñu baax lañ ndeysaan essayé nañ leen a utiliser ñii ay mbàkke mbàkke lañ ñii ay siisi ñii euh, famille famille Cheikh Béthio la bokk. Mhm. pour jéem a xool nan la ñuy def pour tranquilliser la population ndax xam nañ ne foofu. religion bi dafa am doole mhm. boo ci gisee ay yenn nii rek da daw di ado ko ñooñu ñu baax lañ ñun amuñu dara lu wax d'ailleurs sax ñun bu ñu amoon possibilité sax jox leen dañ leen di jox lépp li nga xamante moom lañ yor mhm. mais ñun ñi ñuy xeexal mooy ñi def lii bëgg leen a utiliser pour jéem caché wu derrière ñoom pour valider ñoom ce qu'ils sont en train de faire. voilà léegi léegi nan ngeen fas def ah, parce que yóbbu ngeen ko euh, ci yoon am ngeen ay ainsi de suite on verra euh, naka ngeen fas yéenee def encore maanaam seen prochain euh, plan d'action. waaw yow yëmuñu foofu rek ah, parce que hmm? d'ailleurs am na am na Dakar. Hmm. lii peut-être c'est le procureur auprès de du du régional. Hmm. de Diourbel am na yeneen judiciaire fii. of na mm. mm. donc parce que li ñu gis ñoom enrichissement illicite la. Mm. on essaie de voir carrément est-ce que leur niveau de vie correspond à un temps record. correspond à leur à leur. maanaam daal ñi ci bokk ñëpp da ngay jéggi. ba pare moom la secrétaire municipal moom la secrétaire municipal vidéo bi mu wax. ne mm-hmm. carrément. def ay révélation yu grave mm-hmm. dina maire moo ko def tam moom bi mu koy wax il était le président de la commission finance ci eh, conseil municipal bi kon moom ko lu ko leer la bi ñuy wax naan carrément voté nañ budget temps en dix millions maire bi jël trois millions dugal ko fa jël sept millions def ci poosam mm-hmm. dem ma bay wax sax Euh, li ñuy jënd kaye ak bi pour école yi maire dafa jël benn partie jënd ko li ci des mu dugal ci poosam mhm. kan caniveau yi nga xamante ne bu tawee tey mhm. ndox mi bañ a too dañ koo war a sécurité mhm. ne wax na ne am na benn somme bu ñu génne pour budget bi def ko fa maire jël ko def def ci poosam euh, euh, vidéo bi mu ngi sama page yëpp dinañ ko mettre à la disposition de la justice kon daal da ngeen dem ba mu jeex parce que li ñu bëgg mooy li ñoom ñu xam ne Bambey moomuñu ko ñoom ñu xam ne. Mhm. Bambey c'est la terre de nos ancêtres. Mhm. et que du ñu accepter ti ku fi ñëw def lu la neex boo paree dem ne du mujj fenn c'est ce mot là qui la population. parce que boo xoolee euh, maire ak ñoom au début loolu la doon wax wax ji du mujj fenn d'ailleurs récemment. maire loolu lay wax c'est c'est est-ce que yow li nga euh, jëloo ni risque bu nganda ngand jiitu ci xeex bi ainsi de suite yow astako c'est vrai que xam nañ la ba nga nekk <laughs> université noonu la woon yëngu-yëngu syndicaliste nga mais est-ce que du tamit risque nga jël pour porter ce ce combat waaw dëgg la risque la risque bu ko jar mhm. ndax rien n'est plus noble que de se battre pour sa communauté mhm. d'ailleurs soo xoolee sama page Facebook am na quelques jours mhm. sama buntu kër topp nañ sama jaar ba fi muy liggéeyee un scooter. topp ko ba fi muy liggéey ba fi muy liggéeyee. Mm-hmm. def nañ plainte HLM. waa DIC jox nañu benn numéro. de mm-hmm. téléphone. Mm-hmm. heure bu gisatee ñu koy topp na na leen woo. cinq minutes fu mu nekk dinañ fa ñëw. te loolu bi nga commencé. xeexu litige foncier bi ñëw naa oto oto bi topp ma ba sama koñ. benn 4-4 benn 4-4 RAV4 bu noir ñaari policier ñoo ci nekk signalé naa ko à la ñu taxaw gaare suñu oto dugg ci biir xool xool xool parce que man dama wax ne man duma ma tux yàmba mhm. kenn mënu ma takkal du ma naan sàngara kenn mënu ma takkal mhm. du ma jaay drogue du ma ko doxantoo donc du ma nangu benn yoon ñu ñu xoqatal ci genre affaire ndax dañoo gis ne dossier bi ñu ci laal dafa bari mhm. gis nañ tamit ay yenn actes yoo xamante ne ñoom ñoo ngi koy teg xam nga pour jéem a déstabiliser keroog rek dugal naa benn plainte sûreté urbaine benn mm. numéro de téléphone boo xamante ni mu ngi fii mën naa laa sax woon après le message mm-hmm. envoyé message di ma saaga ndey boo bàyyiwul mairie bi di ma saaga ndey mm-hmm. porté naa ko plainte sûreté urbaine d'ailleurs euh, may remercier bu baax la commissaire le commissaire euh, Thioubou mm-hmm. mi nga xamante ni moom moo recevoir sûreté urbaine waxtaan ak man dalal ma jël sama plainte ba pare ñu koy diligenté donc ma koy remercier bu baax baax baax mhm. baax donc xam nga risque bi nga jël daal donc c'est un c'est un risque boo xamante jar na ko mhm. parce que li li ko jarul mooy nga jël risque boobu lu ma gën a may fit mhm. mooy la population de Bambey ak le collectif parce que boo gisee collectif bi ni ñu àndee jël seen xaalis di ci def gis nga avocat bi même li ñu koy fay dañoo cotiser ñii cinq ñii mille francs ñii ñi am somme bi. daal di presque li ngeen jox ko ñu jox ko suñu avocat te xaalis bu bari la. Mhm. population bi ñoo ko fayal seen bopp. Mhm. Euh, di leen remercier bu baax aussi ak collectif bi ak ñëpp ñi nga xamante ni boobu ba tey. Mhm. ñu ngi suivre le combat di ci def lépp lu ñu mën pour que dëgg gi feeñ. ñu bañ a jàppati population Bambey comme ñoo xamante ni dañ leen di exploité. Mhm. dañ leen di toroxal bu ñu paree après euh, bu ñu leen soxlawaatee tamit ñu utiliser leen bu ñu paree sànni leen. yow naka gisee parce que litige foncier Sénégal dafa bari euh, tout le temps nga dégg litige foncier bu bees peut-être temps yi bi fi gën a siiw mooy Ndingler temps yi sax sedd na mais pour yow ban jàng nga ci am te tamit nan la ñu mën a xeexee litige foncier maanaam jaay doole ñëw jël suufu jàmbur jaay ko ainsi de suite mu nekk problème yoo xamante ni sax tey tribunal euh, dossier yi fa nekk ci wàllum litige foncier kenn xamu nu mu toll. pour yow lan mooy solution bi. parce que bu fekkee ñu war a doxal yoon ñoom da cee war a jël mm-hmm. responsabilité di attirer waat attention. Mm-hmm. yenn institution yi. Mm-hmm. parce que maire yi souvent bu ñu def genre yi. dañuy jéem a xool ñoom. ñi nga xamante ni tey bu coow amee nit ñi mën nañ faa dem ñu jëm leen a sexal wala sedd leen wala genre affaire bi xam nga donc du kenn la ñuy jàngal sa métier sax mais ñu prudent ñi prudent. parce que dossier Bambey bii. jàngal nañu jàngal na lu bari ndax kilifa yi nga xamante ni ñoom jël nañ leen ñoom dañoo def exprès mhm. dugal leen ci liste bi taf leen ñëpp gis leen mhm. ba nga xamante nii tey ñoom dañuy nekk très mal à mhm. pour wax si trois mois ngi nii maa ngi wax di leen cité ñoom ñëpp kenn ba tey ari ci te am na si ñoo xamante tey bu leen neexoon rek ñu auto séjour ma nekk ñu jàpp ma jëm jëli ma mais ba tey ñëwuñu parce que preuve am dafa dafa grave li nga xamante ni moom la mairie di jël di leen ko mayak di leen ko jéemal yi c'est pour se protéger mais est-ce que gënu woon nga nga lancer appel directement le chef de l'État mooy waaw parce que da ngay litige foncier dañ ciy tudd les les maires là effectivement fa jëm mm-hmm. euh, le chef de l'État aussi dañ koy wax di ko ñaan litige foncier yi nga xam ne commencé naa am Sénégal particulièrement Bambey mu jël ci des décision radicales yoo xamante ni mm-hmm. du ci protéger personne mm-hmm. ba mu nekk une leçon parce nous on est vers un autre boo xamante ne ni. Mm-hmm. Sénégalais yi wala bambayaay yi ils se sentiront étrangers. Mm-hmm. ci seen propre terre. Mm-hmm. day mel ni yow doxandéem nga. ci yow suuf si nga dëkk say suuf maam say suuf am na ñoo xam ne ay tool lañ yoroon di ci bay booba ci la dundee. parce que jànguñu peut-être amuñu yenn moyens ñu nungu tool yi lotissé ko yenn yi ñu jaay ko wala ñu maye ko alors que population autochtone bi nga xamante ni ñoom terre yooyu la ñuy jël. di ko bay di ci dundalee seen di ci dund. di ci suturlu. amuñu ci mm. ñu nun ko non seulement wala bu leen ci jox benn wala ñaar leen ci jox li ci des ñoom ñu jël ko dugal ko seen poste wala séddale ko wala sédd sédd ci ay nit yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne dañ ko war a bàyyi parce que nag yooyu mooy nekk benn nekk ñaar nekk ñett ba exploser nekk loo xamante ne mm. ce sera ingérable mm. parce que tey jii nii soo xoolee tendance bi mooy ci commune yëpp jeunes yi jug nañ cadres yi jug nañ ne lii duñ ko accepté ti fu ñu gisati litige foncière parce que ñëpp ils sont informés ah tey réseaux yi mu ngi fi jàng nañ xam nañ yoon lan la wax ci mbir mi ni mu daan demee dans le passé mënatu nay demee. Mhm. c'est impossible rien ne comme avant. parce que dans le passé amutoon ay Facebook amutoon ay WhatsApp. ñenn ñi mhm. intéressé wuñu sax ci gestion ah mhm. mais léegi a la population avertie boo xam ne dañuy intéressé wu. ci gestion lan la waa mairie di def. lan lan ana budget bi nan lañ ko doxalee parce que loolu yoon moo koy may. def nañ lotissement est-ce que respecté nañ les critères affiché nañ liste parce que loi daf ne bu ñu loolu ba pare. ba tapé liste yi ba commission bi déggoo ci critères yi ñu war a tànne bañ tànn ba pare le receveur des domaines mhm. dafa war a vérifier liste bi xool ba mhm. xam amul ay erreur wala genre affaire yu mel noonu mhm. la toll parce que dañoo rendre compte ne receveur des domaines deful liggéeyam parce que receveur des domaines bu defoon liggéeyam kon du gis ay mineurs yoo xamante amuñu carte parce que terrain suñu la ko jox ci carte d'identité la ko jox mais ñooñu ñooñu directement parce que ça c'est des preuves yoo xam ne kenn mënu koo génne mënuñu koo justifier hmm. boobu ba tey xoolal mënuñoo génn ci fes bi expliqué wu à chaque fois bu ñu génnee population bi yëpp leen dal hmm. parce que mënuñoo joxe benn argument valable par rapport ak li ñu leen tegal avec des numéros de terrain avec des critères avec des doubles attributions des mineurs des autorités politiques administratives seen membre propre famille hmm. seen membre ñi xam dañuy ànd Euh, ñi nga xamante ni mbir mu fa leen fekk ñoom ñëpp ñu jox leen terrain li ñu bëgg mooy ku nekk am parcelle bi ko soxla wala ñuy jox keneen wala ñuy jaay keneen ñi nga xamante ne nii ñoo ngi loué amuñu sax dix mille wala si te Bambey location bi léegi dafa cher dafa cher ndax université bi mm. ay chambre yi yoo xamante ne ay quarante mille lan lay waxtaan mm. mais ñoo xamante nii il peine à la dépense quotidienne mm. est-ce que mën nañoo dem jël benn chambre à quarante mille ak cinq doom wala six doom mais ñooñu boo leen bu yàggee ñu tabax benn tabax hmm. di mool ñaar tabax seen néeg tabax seen ñaar ne nekk fa xam nga mais moo gën nga koy jox koo xamante ni soxlawu ko mais da nga koy jox tey suba mu dem jaay ko hmm. def ci poosam wala da nga koy jox suba mu jaay ko am na sax boo xamante ni gis nañ ko fa bu bu doy waar hmm. euh, d'ailleurs man bëgguma sax di di citer les gens de la justice. Mhm. parce que nag ay jàmbaar lañu. loolu da nga ragal. mais da nga ragal oh, da nga ragal cité waa justice. waaw nekkul ragal parce que boo xoolee man sama euh, page <laughs> Facebook ñoom boobu ba tey maa leen di cité. Mhm. dem naa ba 2STV. Mhm. DTV ñëpp ah ku nekk ci justice defoo yoon. waaw vraiment tamit vraiment tamit au-dessus de la loi. loolu dañoo gis dañoo gis fa un un de quatre terrains boo xamante ne waa Ngoy ñoo ko lotissé woon. quatre euh, cinq terrain mm-hmm. jox ko un ancien président du tribunal bu affecte affecté Bambey mm-hmm. kooku jaay ko mm-hmm. benn am d'affaires bu nekk Bambey buy jaay affaire quincaillerie xam nga mais dañoo gis ne kooku moom nangoon ne moom le responsable la moo ko jaay moo ko jaay terrain bi le président du tribunal bi dem moo ko jaay mais mais bi ñu defee extension bi terre yooyu noonu dañ ko rattaché waat ci Bambey mais dañoo gisaat même terrain yooyu noonu génnaat ci liste bi waa ji def ci turam turu aawam. Mhm. turu ñaareelam. Mhm. si si terrain yi. Mhm. def ci turu sëram. def ci turu papam ah, def ci turam. yooyu ñu génne ñu publier ko génne numéro terrain yi 805 806 807. numéro terrain yi DVF fi zone boobu nga xamante ni foofu la ngoy li woon may ko euh, le président tribunal bi ñu kooku jaay ko le comment un président de tribunal peut vendre des terrains sur le domaine national. ça pose problème quelqu'un qui vraiment xam nga mais. c'est des choses yoo xamante ne ni parfois da ngay nekk très mal à l'aise pour wax ko parce que ñun attaqué wuñ kenn on fait juste des commentaires. Mm -hmm. sur ce qu'ils ont affiché. des noms te it am na am na liggéey bi ñuy def ni yaa jeex nii. Mm. gisaat nañ ci sax ne autorités yu bari yu nekk Diourbel région Diourbel. Mm. may nañ leen ci ñoo ngi ko ñoo ngi génne noo yi benn par benn. moo tax ma ne la dossier yi nii bu dinañ defaat beneen troisième publication mm, mm, dañuy génne au delà de chef de mm. service yi nekk Bambey am na yeneen ñoo xamante ni ñoo ngi biir région Diourbel diggante barki démb ak démb ñoo ngi ciy liggéey génnewaat nañ ci ay tur yu bari yoo xamante ni biir région de Diourbel lañ nekk ñoom ñoom moom nekkuñ sax département Bambey mm-hmm. ay autorité lañ jox nañ leen ci suuf si voilà seen numéro terrain yeeg yëpp def nañ ko ci tableau bind seen tur seen numéro terrain ak seen ak seen euh, position bi ñu bi ñu yor dans l'administration. voilà temps bi jeex na. asta ah ko ñu bàyyi la nga tàggatoo ak auditeurs di remercier waa Bambey voilà. di sant ñëpp di leen wax ne kontaan nañ ci taxawaay bi surtout le collectif la jeunesse de Bambey. Mm. la population de Bambey les cadres de Bambey. Mm. les Bambeyois de la diaspora. donc di wax ne ñoo ngi tàllaat loxo suñu borom di ñaan yàlla jaarale lépp ci yoon mm. dëgg vraiment mujj ci dossier bii nii. Mhm. yoon def yoon. waaw loolu la ñuy wax si yàlla na yoon def yoon donc ñuy remercier ñëpp di remercier Sénégalais yi dañuy wax ne ñu ngi continuer suñu combat. Mhm. d'ailleurs ñu ngi dem vers d'autres euh, d'autres émissions yoo xamante nii mhm. dinañu permettre ñu. sensibiliser waat la population sénégalaise. ci li am Bambey ak ak yi nga xamante ni ñu ngi koy poser jëm ci leeral mbir mi. ba yoon def ci yoon ñi nga xamante ni taq nañ ci. ñëpp ñu situé seen responsabilité jël li nga xamante ni askan wi moo ko moom ñu delloo ko askan wi. ñu ngi remercier ñëpp di leen sant. mi ngi noonu ñu koy remercier bu baax a baax ki lee di Astako Diagne nekk euh, njiitu collectif pour la protection des terres de bambay ñu doon waxtaanee litige foncier bi nga xamante ni euh, temps yëpp moo daal di occuper actualité bi am foofu foofule euh, ca bambay kon ñu ngi koy remercier bu baax a baax di remercier Mamadou Diaw Diallo bi nekkoon ci technique bi Léon Paul Mendy ci réalisation bi émission bi mën ngeen ko dégluwaat ci suñu chaîne. chaîne YouTube Rewmi officiel wala ci suñu portail internet www.rewmi.com kon Ndeye Comba Moreau di leen wax samedi prochain euh, ci beneen émission beneen thème ak beneen invité jaa jëf